léegi nag fi ñu toll ndax politique ay tolluwaay politique da ngay di toll ci moment yoo xam ne dañ naan dañuy mobiliser dinañu toll foo xam ne dañ naan dañuy jaay ay carte yenn saa yi ñu toll foo xamante ni dañ naan dañuy campagne dinañu toll foo xam ne dañ naan dañuy wote fi mu nekk nii nag xam nga fan la ñu toll ñu ngi toll ci le parrainage parrainage nag. Moi, moi soo suis nekk candidat il faut nga am ay citoyen yu la parrainer wala ay député yu la parrainer wala ay maire wala président du conseil départemental Le Sénégal am nañu presque 200 candidats deux cent candidats waaw su parrainage am loolu su parrainage am loolu dañuy bàyyi deux cent candidats yi moo tax président Macky bi muy def parrainage en 2018 ñu naan c' est une violation de la démocratie c' est une violation du di du vote parrainage baaxul day delloo démocratie bi ginnaaw tey kan moo bañ parrainage kenn bañatul parrainage ñëpp d' accord nañ ci moo tax nag gis nga Sénégal soo yoree nguur. di gouverner yore état ñu dégg la ay responsabilité da ngay def rek bul déglu sax ñuy wax defal rek gis nga soo defee histoire mooy wane ni waxoon nga dëgg waaye gis nga soo dégloo nit ñi wala déglu ñuy critiqué tiit dellu ginnaaw su boobaa doo assumer say responsabilité te loolu baaxul ci loolu parrainage bi ñu koy def coow li bari woon na en 2010

le président millions parrainage parce que 2 millions 500 000 parrainage donc parrainage vous réussissez gagné avant l'heure gagné l'élection élection avant les élections L'homme motax président dem parrainage bi risquez objectif de 105 000 parrainages au niveau du département Comme une boulette, il y a parrainage a tax Ça li ñu def semaine passée ça, ça. On a à faire. On a lancé le parrainage pour le département Je vous félicite. Et on lance le parrainage pour la ville de Rufisque parrainage on va le faire de façon sérieuse dinañ ko def de façon communautaire dem ci commune On a tax ce faré. La semaine passée a lancé le parrainage au niveau du département Il def le lancement du parrainage au niveau de la ville Les nag li des Souleymane monsieur le maire à Mar li des lancer mooy ñu parrainage au niveau la communes

la couverture de la construction du progrès du Sénégal, la construction des emplois pour les jeunes. loolu nag il faut nous dugg ci bëri xumbal ci politique la bokk mobilisation ci politique la bokk waaye nag élection yi pour gagner ko dañuy dem ci quartier yi dañuy dugg ci kër yi waxtaan ak nit yi wax leen intérêt Sénégal xam mu nekk mooy ñu ànd le président Amadou Ba au soir du 25 février 2024